سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن هدى بهديهم وسار في نهجهم إلى يوم الدين bokk ci li teew yépp moo ngi leen di nuyu nuyoo islaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen dalal jàmm barab bu tedd bii te di leen ndokkee ci bés bu tedd bii nga xam ne bésu islaam la bésu jullit yëpp bésu Sëriñ Tuubaa la ko xam li ko sabab xam ne jullit yépp a ko bokk ndax mooy bis bi Sëriñ Tuuba ñu gisee duggee bu barkeel boobu wàcc Daaru Salaam mooy bis bi ñuy màggal kenn koo nga ne tukki ba li gën a yéeme ci biiru Sëriñ mooy moom bis bi ñuy génn di dem ci tukki bi la digle ñu fi sant la yàlla nga xam ne bisu tiis la bisu natt bu diis la bis bu ñu tàqale ko njabootam ñu génne ko këram yóbbu ko mu jur fukki fan ak juróom-ñett ci safar bis boobu la digle ne dañ ko la yàlla la lu mu la waaye bis bii mel na ni daanaka ñaan sunu borom ndax li nekk ci digg bi lépp mi ngi ñaan sunu borom dellu si bu Daaru Salaam te def del si bi ولا نعصى بلا سياج

رجالا ثم جاء